est-ce que tamit mhm. parce que ci sa biir wax bu dara nga def entretien. Mhm. xam dafa fashion. Mhm. xam daf ko bëgg ci les femmes chanteuses yu sexy Sénégal mom wax je mets en valeur ma poitrine donc lolu yow par exemple tay tu poitrine dem ci bureau. bëgg bëgg demander liggéey bëgg est que tamit du di yow yaay provoqué xale yu góor ba tax ñu lay proposé ay promotion canapé. ok ba léegi ba léegi waxuma ñu lay proposé. Hmm. promotion canapé enfin ni nga ko waxee du man noonu laa ko waxee. waaye hmm. bon ba tey amul problème dama koy assumer. Hmm. Euh, commencement bi vraiment poitrine bi dérangé woon na ma. pour wax dëgg. parce que comme man damay sonn ci bind ay thèmes di xool. naka laay def cest dire dama ko jël mu sérier mu nekk si man mhm. damay liggéey dëggantaan soit sama liggéey fës na wala dese naa fës comme mhm. ñeneen ñi loolu mhm. chance la ku nekk je pense que ku nekk li li sa wërsëg ci àdduna loolu rek ngay jël euh, su ma defee morceau mu am buzz wala amu ko moom ak yeneen yëpp laa yemale sama njaboot laa leen tuddee sama ay doom lan soit am na ko ci gën a am chance kii moo ëpp wërsëg kii moo kii moo ëpp lii loolu yëpp ki mais euh, commencement bi comme li ma expliqué comme ni ma si daan sonne ci musique bi nit ñi duñu wax ci musique bi soo waxee Mariama Barre ah borom dënd bi. Mm. xawoon na ma déranger. est-ce que nekkul yaa ko doon exposé di leen ko wan. xaaral rek noonu dafa bokk si man. <laughs> dafa dafa bokk si man. léegi ma ne xaaral comme ñoom mënuñu ko bàyyi ñu ngi siy wax rek. Mm. graw legui nak comme si man la sax te munuma ko dindi mm. munuma ko dag sanni mm. bàyyi la ñu jël seen ñamu beut amul problème <laughs> mu goor ñi ñu jël seen ñamu nyomai wa bàyyi ñu jël seen ñamu beut te te te du ñom seen ki ñomay ñomay téré dem fi ma bëgg dem mm-hmm. parce que suma naré tok dem na ba benn moment sax damay laqatu wala yoyu suma naré tok top euh, dënd bi dënd bi dina ma tardel mm-hmm. bàyyil ma xol sama kanam parce que vraiment limay xaar bari na mm-hmm. euh, sama fan ñima bëgg bëggal def na benn affaire réussir na il faut ma bégal leen il faut ma il faut ma avancer. Mhm. def leneen. mais est-ce que mënoo woon xalaat beneen stratégie c'est-à-dire que comme ni nga ne ñoom ñëpp kuñ ci wax Mariama rek da nga naan dënn bi. Mhm. changer sa habillement nëbbu dënn bi tuuti xëy na peut-être là buñ neetee Mariama rek dinañ xalaat euh, purement musical ci musique am la ñuy daal di wax. Mhm. que di xool dënn bi rek tout le temps. Euh, man nag duma ko koo xamante ne damay comme duma ma torturer sama bopp noonu. Hmm. gis nga ma maa ngi ñëw fii. def relax mais sol sama yëre presque yëre sport naa sol. Mm-hmm. maanaam man nit bu naturel laa euh, ma soeur dama simple ba nga xam ne maa ngi bi ma dugg see maa ngi la ne dama xawoon a tardé. Mm-hmm. maa ngi doon wër sax lan laay sollu nice comme VIP people lay ñëw. Mm-hmm, mais comme bugguma woon tardé ak embouteillage ak yooyu dama xëcc lii rek sol ko ñëw. def lu relax def lu relax léegi nag poitrine bi si man la bokk. soit ma sol benn affaire génn na naturellement ma xam ne génn na. ñi may dem. bu dee ñoom neex na leen seen chance la ñu jël seen ñamu bët <laughs> amul problème alors su nekkee leneen laa sol su nekkee leneen laa sol fekk dafa nëbbu ah keroog tam ma xam ne chance la pour man tey boobu nëbbu na kenn du si wax ñu wax si mhm. ñu wax si leneen parce que mhm. si man la bokk te nit ñi mënuma leen euh, tere ñu wax si waaw mais li ma gën a amoon solo mooy ñuy déglu morceau yi mhm. déglu thème yi parce que liggéey bu metti lañ siy def te euh, ay histoire yo xamantene lañuy la raconté. Mm-hmm. mérito na nit ñi bëri xam ko.